faut être il faut être sérieux Coumba Sàngal du moo fi télé bi. dañuy ñëw dañuy il faut être sérieux Coumba Sàngal ëmb sutura. ku laal dama ci bëggoon dugg dix dix secondes rek. parce que ñëw xam naa Karim Wade bi ñu tudd. non non non pas Karim Wade dix secondes sur le bilan. oui xam nga le président Macky Sall bi muy ñëw. ba ngeen accès waxtaan ak les syndicats de l'éducation Serigne mbay Thiam ak yéen da ngeen wax na ngeen di de des accords réalistes et réalisables. Mm-hmm. réaliste et réalisable loo xam ni li ñu mën lañuy signé li ñu mënul duñ ko signé mais li ngeen signé ngeen defut lu mooy première chose deuxièmement le maire wax na ko léegi fu ngeen jëlee xaalis bi ngeen di tabaxee les infrastructures gis nga le budget du Sénégal boo ko xoolee tey on doit s'endetter à hauteur de mille trois cent soixante-trois milliards dañuy leb ñetti téem junni milliards ak ñetti téem ak juróom benn te te waxuma la sëy bi sax mais dañuy leb pour fay bor parce que at mu jot dañuy milliards. c'est-à-dire juste pour non. dafa eh, répondre pourtant le xam nga li le président Macky Sall yi ñu defoon yow waroon productif indi développement croissance la defut au foofu la lajjee. Mhm. wax naa ko seen ministre de l' seen précasse bi mënul développé lu ma indi fii. xam naa ko. lu ma xam naa yaa ma ko mayoon xam naa la bu baax. damay won ne la question que j'ai posée dafa am lu mu sous-entendre. xam mooy seen pracas bi ngeen tabax pour développer agriculture mënul di yóbbu Sénégal ci kanam. wax naa ko seen ministre bi de l' agriculture en réunion. mënul dem parce que li ngeen tabax mënul dem xam nga tax Sénégal ñëpp xam ne Afrique de l' Ouest trois années yu nekk quatre années yu nekk am na sécheresse mais loolu ñëpp xam nañ ko ngeen jël seen pracas def 40 pour cent yoo xam ne riz pluvial pour développer le riz c' est pas possible mënul dem deuxièmement avec Ablaye Wade. Mhm. Ablaye parce que il faut ñu réorienter les priorités point Abou il faut ñu avancer faut ñu avancer euh, avancer bi moom mooy li ñu doon waxtaan sànq jëm ci rapprochement ou pas diggante président Macky Sall ak président Abdoulaye Wade stade bi tuddee nañ ko ko monsieur le maire euh, stade boo xam ne gis nañu déjà ni mu taaroo gis nañu mobilisation du parti démocratique sénégalais ndax geste bu républicain la wala dafa am ay dessous politique nag nga ko gisee. écoutez on peut peut-être ne pas mais ne pas voir les choses de la même façon. Moi, je considère que dellu njukkal la rek. et c'est ce qu'il a dit c'est son prédécesseur ci angle boobu laa gis qui parlent de rapprochement ou autre chose ñoom ñoomi neen la ñoo ko mën a wax li am solo mooy nous sommes sur le champ politique nous observons de voir et comme que ñun ay scientifique lañu dañuy jàngal analyse concrète situation concrète donc vraiment pour moi c'est un non-événement di perdre du temps di théoriser ay rapprochement c'est quelqu'un c'est un président Abdoulaye Wade que je salue encore ñaan yàlla guddal fanam yokk wéram nekk na fi président la République comme le disait tout à l'heure mon ami la am na lu rëy lu bari lu mu fi def parce que buñ la falee nag ñu la doo nga ñàkk bañ a def dara am na lu mu fi def bi mu defaree stade bi ñëpp lu taaram mu tudde ko aussi nit ñi rafetlu nañ ko parce que yooyoon na turam Abdoulaye Wade ancien président de la République du Sénégal yeeyoo na tur bu nekk fii ci li ci ci réew mi mhm. maintenant est-ce que loolu calendrier la contexte bi dañu génn ci élection locale euh, yenn ville yu mag yi ñit ñi jàpp nañu ne euh, naam ñoom amuñu ko woon bennoo mais dañu ko perdre ci bu ñu wàcc élection législative jëm ci élection présidentielle yeewi askan wi qui se positionne ak yeneen coalition yi nga xam ne ñu ngi ñëw di positionné wu amul dara loo xam ne mais raison de plus parce que avant Ablaye Wade am na ay doomu Ablaye Wade yu mu indi ba ñu def mburoog sow lan la ko jural est-ce que jar na ko je pense que nit ñi bu ñuy engagé en politique c'est pour autre chose mhm. mais pas di jël comme di l'union de promouvoir ay transhumance di tàllal loxo ay ñu on sort des élections Macky est dans une situation inconfortable très difficile heureusement il y a eu des événements qui ont fait que mu am euh, une joie nationale je peux dire mais comme li ma waxoon c'est pas l'arbre qui cache la forêt il va faire face à la réalité du pays et des problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés de jour comme de nuit le secteur de l'éducation euh, mon ami wax na ko léegi mais le mouvement syndical dafa am raison d'être et Abou l'a répété tout à l'heure dans l'histoire syndicale de notre pays à chaque fois il y a des revendications mais ce qu'un syndicaliste surtout dans le secteur de l'éducation ne peut pas comprendre c'est à l'issue d'une grève que ñu war a toog toog autour d'une table discuter ba ñu jël ay engagement mhm. consigner ko mais au niveau de l'application ça pose problème et subitement le Sénégal gagne la Coupe d'Afrique ce qui a créé vraiment une allégresse au niveau du pays une joie immense du peuple sénégalais xoolal li ñu leen jox loolu ñu leen jox waxuma ne yeeyoo nañ ko mais pendant ce temps il y a des enseignants qui ont joué du football avec leur craie et dans des conditions désastreuses pendant ce temps c'est des abris provisoires au niveau de, du secteur de l'éducation. Alors que le développement, la clé du développement, l'éducation n'est pas une priorité. L'éducation, c'est la priorité des priorités. Qu'est-ce que le président a fait dans le secteur de l'éducation? Des enseignants qui, de jour comme de nuit, qui se sacrifient, qui ont donné toute leur vie, qui payent de leur poche même, pour véritablement accomplir la plénitude de leur mission. Mais yaa xeeti il faut quand même ñu am un peu de considération mais c'est pas le cas c'est des dépenses de prestige pensant que cela va étouffer les problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés mais ça c'est de la malgouvernance c'est même de l'ignorance à la limite je suis au regret de dire que ce gouvernement sur beaucoup de déchets vraiment je suis resté sur ma faim d'abord le dialogue sincère là bi ñu doon prôné au niveau syndical n'existe pas n'existe pas dans ce pays-là alors que booy wax développement le le capital humain dafa am solo à tout point de vue mais quand tu n'as aucune considération pour le capital humain mais mais est-ce que du ngeen ko ko nangul également peut-être euh, digganteem ak syndicat yi am na ay gàllankoor mais ñi ngi waxtaan su le plan politique gis nañu dialogue politique bi li mu indi ñu dem ci élection gis nañu peut-être euh, papa ja woon ak doom ja ñu tuddee ko euh, li nga xam ne mooy stade PDS nga gis leen ñu daje ak ki nga xam ne mooy président de la République Macky Sall ñu jegeyantoo wala loolu dafa nekkul faveur u yeewi askan wi faveur u taxaw Sénégal